mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ngi rafetlu lu baax seen ànd ak Ferlo FM 94 point 0 Daara ak 3w point jolofactu point waaye tamit di nuyu mboolem ñi ñuy déglu ci Africa 7 90 point 7 ci Ndakaaru ak li ko wër 106 ca Touba ba ci 3w point Africa point TV ni ñu ko baaxoo mbokk yi di ko ànd ak yéen seen émission pencum jolof gannaaw gaaw bu jot ci Ferlo FM ak altine bu jot ci Africa 7 ni leen ko yëgle woon ci fan ñu rekk daal di uh, génn tey ñu ngi wéyandi. am ci mbégte baax nag dalalaat ci euh, keneen koo xam ne kii moom itam euh, du gan ci émission bi waaye xew-xew ak jamono moo waral ñu daal di sàkkuwaat ak jaaraatam ci euh, penc mi di pencum Jolof inspecteur Idriss Samb la inspecteur des impôts et des domaines nekk tamit njiital mouvement Jolof en march inspecteur ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu daam di di leen gërëm ci invitation bi ngeen ñu defal di nuyu suma mbokku Jolof yëpp. di nuyu tout la diaspora yi ñuy déglu di nuyu tamit waa Ferlo FM avec ses auditeurs di nuyu waa Jolof Actu à travers euh, leur page euh, Jolof Actu ak Africa set alors jërëjëf euh, inspecteur ñu ngi lay gërëm ci wuy siwaat bi nga xam ne bi wuy siwaat nga ko suñu émission pencum Jolof alors Jolof en marche wala Daara en marche. bon Jolof en marche parce que suñu mouvement bi Jolof en marche lañ ko tuddee. Euh, te suñu yéene tamit mooy euh, Jolof dem ca kanam kon je pense que Jolof en marche la tudd waaw alors Diouf en marché tey bi ngeen koy euh, taxawal en tant que inspecteur des impôts et des euh, domaines euh, ni ñu ko waxee yàgg nga sàkku pour dugg ci wàllu politique amagoo si woon ndigal ñu wéy di jaale waat sa waajuru góor yi nga xam ne wi xëy na moom nga doon déglu tey ji yàlla yóbbu na ko ñi ko fi nekkal tamit nga jàpp ne say waajur lañ rek ñoo la ci dugalaat bi nga duggeek diggante beeg léegi ban naa nga def ci rëccu tuuti ci wàllu politique li nga ci duggee woon wala da nga ne difficile la nag ndax euh, comme ni nga ko waxee suñu góor ga yàlla na ko yàlla yaram alaaji Omar Samb imaamu Daara Mbayeen ay jamono mas naa ko cee waxtaan ak moom mun a ma joxuma la ci ndigal ah yàlla dogal ba mu génnee àdduna ay circonstances taxaw ay nit ñëw seet ma wax ak man ma tontu leen la même chose ah ñu dem wër ma ndomba dem ci sama mag bi nga xamante mooy suma taaw suma di suma xalifa di Njaga Samb nekk Espagne wax ak moom wax ak ah, suma papa ji nga xam ne moo fi nekk tey di xalif ci kër gi El Hadj Ousmane Samb wax ak sama mag Momar Samb bi ne États-Unis mbay Samb bi ne Espagne ak toute la famille imam Pape Samb ak ñoom ñëpp ah bi ñu ko waxee tamit bon ñoom bañuñu ko. waaw xanaa ñu ñaanal ma rek na ma yàlla boo ci gis lay tiital pour revenir sa question bi bon c' est très difficile pour ma wax ndax euh, am naa ci réccu wala yooyu mais euh, sama papa daal après laa tëdd ba xam ne daal jox gumal ci ndigal mooy diggante yërmaane doom ak baay ndax xam na ne politique métti na politique ingrat na maanaam doo ci am li nga bëgg peut-être métti na te xam na ne daal euh, doomam peut-être. coono boobu yéenewu ko ko woon man ci sama gis-gis parce que waxuma xam naa lu nga doon ci góor gi ne loolu la bëggoon a wax ndax gis nga ko ci ci diggante bi xëy na guddagul mais ndax gis nga ko ci gis naa ci lu ëpp loolu sax kay euh, ndax politique ku ne xam na ne ay moyens xaalis moo koy def te xam na ne yoruma ko xam na ne politique temps moo koy def am ëwma temps boobu d'abord politique bëri na ay galgal bëri na ay jëf yoo xamante ni daanaka boo ci gurgulu tuuti rek di nga soppeeku ndax di nga wax loo dul def di nga dig loo dul def di nga am ay sens interdit te man ma nekk doomu jolof aw ma ko woon aw ma sens interdit xam naa mu doon ma bañal loolu ak yeneen pratique malsaine yi nga xam ne mu ngi ci biir champ politique bi galgalante yi wax muy dañ mu xam ne rek doomam warul warul bokk ci ñooñu xam naa dama jàpp ne looloo taxoon ko mais exactement boo ko xamaloon wala ñi nga xam ne ñi ñoom nga tàggu tey ban jox la euh, ndigal na la def ko wax nga leen dëgg-dëgg lan moo la xiirtal ba ne euh, li ngay def euh, xëy na boo duggee ci politique moo lay gën a yokk pour nga mën ko def. waaw du sax ay regret nag ma ñu déggee ko ni dama regretté li ma dugg ci champ politique bi mais euh, juste constat bu ma def la rek xam ne euh, xamoon naa tamit ne du yomb. mais mais justement lan nga tegoon gët ba nga xam ne bii da nga ne euh, lii daal dëgg yàlla xëy na bëggoon naa koo def politique xañ ma ko mun ma koo def wala xëy na bu ma demee fee ñit ñee dogalee danaa gën a mën a indi soppar ñi ci xam ne lii moom laa bëgg def ci Jolof rawatina ci dara. waaw loolu moom du ma ne amul am na sax d'ailleurs parce que politique tamit ay ascension sociale yu mu la mën a jox la ba yenn contraintes yi nga mën ko contourner parce que tamit àdduna la ñu nekk te nit ku nekk aussi ku naan ko la sa wujju di sëlam doo set tey jii bu ma nekkee di def ay action sociale ay action de développement à daara te awuma benn ndomba tànk ci dëkk bi wala ci réew mi tamit ëllëg nit dana nekk daara nekk fa maire wala mu nekk dara noo xamante ni ëllëg pour ma def dinaa ko tàggu daf koy neex ma def neexu ko duma def loolu bokk na ci li nga xamante ni ñu ne ah koo xamante ni xam nga fa ñuy séddalee demal nga bokk ca. mos a gaucher woon am benn cas non. ah kay am naa ci am naa ci ay ay ay certains cas yoo xamante bon c'est c'est c'est subsidiaire c'est pas très grave. mais quand ci ay lecture la yooyu def rek. intérêt personnel la woon wala intérêt commun la woon boo xam ne bi yaa bëgg a lijjanti xëy na politique tax nga ñàkk ko. non politique xañuma dara ndax politique mayuma dara c'est pas des intérêts personnels man lépp lu may yëngatu rek ci Jolof intérêt collectif la. waaw benn bi ma ci mën a tudd rek te bokk na ci li nga xamante ne nekk frustré na ñi ma àndal frustré ma ma xam ne man doomu daara. ba fi ñu toll janvier 2017 bi ñu def école daara mbayeen boobu je me rappelle ce jour la on avait euh, quelques malentendus avec le médecin chef de district docteur Mbaye maa ngi koy nuyu au passage parce que bi ñu ko bindee lettre wax ko yëgal ko def na ma du am loolu du am parce que da waaw du poli da ngay politique ma xam ne ah man mi dëkk dëgg sa ko non waxul dëgg sama ko parce que loolu bu dee mooy poli politique boobu maa ngi ko doon ñaan yàlla sax mu sumee ko ñëw ànd ak ñun parce que ñëw fajal la saw askan jàppale la moom ay manquement yi am ci système sanitaire bi ay doomu daara doomu jolof gis ko indil ko ay nawataa nawataangoom docteur ñu jàppale ko ci loolu daf ci waroon applaudir des deux mais dafa ñëw ne lu ngeen di def du am dangay ngay politique da ngay nangam dangay ngay nangam. ma xam waar boobu la am fan la tegoon wax ji ak. lu tax sax nga yaakaar na bi mu ko waxee war na mën na indi benn jafe-jafe sa consultation boobu. xam nga ñun ay hauts fonctionnaires lan tamit ci dans un état organisé la ñu nekk ci la carte sanitaire boo ko xoolee bu département de Linguère commune de Dar tamit district bi moom moo ko jiite kon centre de santé yeeg clinique ya fa nekk yëpp mooy seen kilifa yoon la booy dugg di dugg ci domaine santé boo xam ne moom moo fa nekk ay la nga jaar ci buntu ba ñu tàgg ko bind ko en bonne et due envoyé ko mail woo ko téléphone séculement yi waxuma benn motif valable lu dul du fi am parce que da ngay politique ma ne ah waa ndek wàcc yëpp mu insisté mu tam waaw insisté wu ma sax nag dama ko woo ñaan ko na ko dimbale ñi rek wax dëgg yàlla am agenu sax laa la wax laa ko wax ne ko boo ko bëggee defal naa la ko ndax li ñuy def yow lañ koy defal ah mu dëgër man tam ma am fu ma jaar xam naa ne gënuma xam réew mi tamit à l'époque c'était Eva Marie Coll Seck son directeur de cabinet on l'avait saisi on avait saisi le préfet Bamba Koné pour won ko ne ko moom mu bëgg ko ak mu bañ ko dañuy def suñu consultation ay nit appelé ko à la raison on a parlé avec notre grand frère docteur Diop maa ngi koy nuyu au passage wax ak suñu docteur Baba Diop wax ay xaritam lañ ay magam lañ ay naataangoom lañ ils l'ont appelé à la raison mu lâché du mais mu bëggoon ko ak mu bañ ko dañ doon def suñu consultation. dëgg dëgg dëgg mën nañoo wax ne xëy na li gën a poussé wala li gën a métti pour nga dugg vraiment ci politique mooy euh, jéego boobu docteur Mbaye jëloon. waaw boobu benn la ci ma xam ne jaamur ci waxin ndax dëkkul daar bu ñëwee doomu daara di defal waa daara di defal waa jolof ab jaamur ñëw ne doo ko def ci dëkk bi ëllëg est-ce que kon su ma toogee rek di seetaan beneen jaamur du ñëw ne ci dëkk bi am fi ay pouvoir ba su ma waree dugg sama kër ga ma am ca daara ma war koo tàggu. dëkkul daara pourquoi nga wax loolu dëkk mooy lan. dëkkul daara gi su ma ko waxee docteur Mbaye il se réclame de Linguère dëgg la il est de fa la juddoo fa la màggee daara liggéey moo ko fa ma xam ne kon dafa war a gis doomu daara yi koy jàppale ci liggéey bi mu jàppale leen ci ànd ak ñoom foofu laay waxee moi je sectionniste wala koo xam dama naan noo kii dëkkul daara non waxin la mais bu dee dëkk daara man maa dëkk daara docteur Mbaye dëkk Linguère ma indi teraanga ci daara mun a doo ko fi dugal. kon yaa ko gën a yëy daara nga bëgg a wax. déedéet gënuma ko yëy daara ndax mën na am moo ma ëppal njëriñ daara moo ëpp njëriñ daara ndax mooy faj waa daara kon man du ma ne maa ko ëpp njëriñ daara waaye en tout cas maa ko action boobu moom ñaawlu ko torop sax wax dëgg yàlla ñaawlu naa ko lool te c'est pas la première fois parce que bi ñuy jongal 300 xale yi tamit bon c'est vrai que ñëw na fa mais passage rek la fa def ma jàppoon ne yow ay xale suñ ko ñëwee di ko jongal en tant que médecin chef yëgoon na tamit yëg na ko bu baax def fa benn bref passage wax fa wax bu gàtt delluwaat fa la yem ma jàpp na moom lépp lu ñu def moom la ñu combler yenn gap yi nga xam ne am na ci secteur sanitaire bi dans la département dans la Jolof et Daara kon moom kenn waru ko ci jiitu mais nu sommes à notre troisième édition ci caravane médicale amul bu ñu def te tàgguwuñ ko binduñu ko invité ko du ñëw du yónnee. très bien bu mujj bi daal la ñuy gërëm bu baax suñu jigéen madame Gomis ophtalmologue wax dëgg yàlla bi ñu mujj def nii ci école 4 bi elle s'est personnellement ñëw jël fa ay engagement jàppale ba nee na ma cas bu ñu war ko def gratuitement loolu tamit madame Gomis moo ko def. très bien inspecteur Idrissa Samb inspecteur des impôts des euh, domaines loolu dana tax ñu gën a dugg ci li nga xam ne mooy jig yi nga xam ne yéen a koy def ba euh, euh, ne maa ngi lay tooñ ndax du daara en marche parce que ñu daanaka mbir mbiri daara daal lay gën a xaw a yem donte ne léegi nga yaatal waaye bëriwul. ah kay bari na de ndax euh, ñun action d'envergure yi ñu ëpp ñu def ci mbiru paj mi la santé bu ñuy def caravane médicale maa ngi ne la ñu ngi ci suñu troisième édition. waxuñu waa daaray faju mën naa wax ne sax waa daara néew ci ñiy faju nit jóge na gasaan nit jóge na aafe nit jóge na lumbal dooki nit jóge na carñi nit jóge na fépp ñëw bénéficié si pour man 19 communes yëpp la ñu invité woon te ñoom ñëpp ku ci nekk ñëw nga ñu defal la un traitement de faveur ce qu'on une discrimination positive maanaam liste bi pour village waaye la ah ña ca yàlla wërsëgalee ñu jariñoo ci kon jolof en marche la parce que jariñ jolof la beneen bi bi ñuy jongal xale yi 300 xale yooyu am na boo yoo xam ne ci àll bi la ñuy jógee ñëw nañ jariñu ci ah on a équipé les trois lycées bu ñu ko defee daara moo am lycée c'est vrai que mënoon nañ ko def sagata wala leneen mais daanu dajul suuf am nay doomu sagata doomu lumbal doomu et cetera yoo xam ne ñu ngi daara di jàng di jëriñoo loolu et cetera. justement mais est-ce que wartoon na gën a yaatu dès lors que nga ne tuddee sa mouvement bi Jolof en marché Jolof gi yëpp nga war a nga war a laaw peut-être cadre yi ci nekk yëpp xëy na daara lañ fekk baax wala soriwuñ daara. ah kay daara et environ dans tout le tout le département foo ci dem rek am nañ fa ay ay représentants boo demee Gassane nga dem Afete nga dem Gang nga dem Melax foo mënti dem rek. ah ci li ma jàpp ci suñu répertoire bi ñu am am nañu ay. 19 communes yëpp am ngeen fay représentant. bon je peux pas dire les 19 communes mais ba war xoox ba Linguère googu sax am nañ fa ba Barké ji sax am nañ fa ñoo xamante ne il se réclame du mouvement Jolof en marche c' est vrai que wax nga dëgg waroon ko gën a yaatal mu tudd Jolof dëgg-dëgg en marche maanaam action yëpp di dem ci euh, goxu Jolof yëpp mais nag li may wax mooy ñun faluñ ñu amuñu ndomba tànk. li ñuy def nii ci suñu saxaaru poos ak nit ñi ñuy jàppale la kon on n'est pas obligé tamit que dëkk Lumbel Dooki ñu ne ko danañ la jox li dana la def la déet ñun dañoo tuddee suñu tur Jolof en marche maanaam am yéene yi fi yaatu ba egg ci Jolof yépp ñun nekkuñu ndombal tànk ministre yoruñu ndombal tànk député du département moo ñu fal ba war ñu obligé à ce ñu def chaque action ci département bi wax dëgg yàlla am Jolof en marche lañ ko lañ ko dippee te dëkk daara ak dëkk feneen ñoo ci am ñëpp bénéfice mën a gis seen bopp dëgg-dëgg sax inspecteur ngeen am récépissé euh, naan la xëy na rek euh, Jolof en marche comme ça mais euh, tur la boo xam ne bu doon ëbbuy euh, daanaka xottoo rek moo fa nekk ah, dara benn ñam nekkul ci biir. waaw loolu c'est du formalisme la rek dëgg la et am solo la nag maanaam récépissé bi mais ñoo ngi ci incha allah vraiment sori nañ ci lool à l'époque bi fi sama grand Bamba nekkee Bamba Koné le préfet on avait introduit une demande. peut-être affaire yi eggul mais comme avec une continuité la ñu nekk te y'a le préfet Mbassa Sène qui est là et qui est un promotionnaire passage ah dinañu dugal suñu suñu récépissé pour être reconnu mais yooyu yëpp c'est du formalisme xam nga am na kayit parti politique wala am na kayit mouvement dëgg la am na solo trop dana tax ëllëg fu ñu woote ci négociation yooyu nga mën fa teew mais li ci ëpp solo mooy li ngay def cadre bi nga koy defee nit ñi gis ci seen pour man lu rek moo solo mais tu as parfaitement raison incha gën a bàyyi loolu suma euh, collaborateurs yi xamante ñoom la ñuy liggéeyal sur le administrative dinañ si nekk incha allah. leen benn gàllankoor ñàkk bi non terewul ngeen def seen activité indil leen benn gàllankoor. déedéet wax dëgg yàlla mosuñ ci am gàllankoor parce que nous sommes des républicains tamit ndax euh, association reconnue de fait dafa am ñoo xamante ni da leen li tur la mais ay regroupement de personnes yoo xam ne c'est pas des malfaiteurs duñ def ay katu ñaawteew ay comme daayira c'est pas la ngay am yenn récépissé yi et cetera Jolof Amas cadre la boo xamante ni ay doomu Jolof ñoo regroupé wu di def lu baax suñ nekkoon ay malfaiteurs di def katu lu bon wala loolu ëllëg bu ñu bëggee jóg kilifa yi ne ci réew mi dana nañu li ngeen di def tegewul ci yoon du am mais yàlla dogal na ba ci lépp lu ñuy mën a def sax au centre culturel ñun dañuy def demande en bonne et due forme demande d'autorisation wala en tout cas d'information à la brigade gendarmerie et au préfet du département de Linguère fekk waxtaan nañ ci ak maire ñoom ñëpp ba ñu d'accord ci jox ñi demande ba maa ngi rappelé commandant bi fi mu mujjoon nekk commandant Kandji commandant Sarr li ñu ma njëkk mooy Idrissa de ñun c' est la première fois ñu gis kuy def manifestation politique wala manifestation sociale def demande ci daara ñun ñu ngi war a gis loolu vraiment continue dans cette lancée. et je vous assure que ñun duñ fa mën a ñëw tant amul trouble à l'ordre public mën na ko kon doo leen fa ñëw ba tax na mosuñu def manifestation gendarmerie wala yooyu ñëw fa wala mu indi fay élément parce que day am ci jàmm am ci civilisé am ci tekk ba yëf yi jeex ci jàmm. alors justement inspecteur Idriss Samb inspecteur des impôts et des domaines euh, njiital mouvement en marche euh, suñu ndaje mu. Euh, Euh, mujj mi mi ngi nekkoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin 2018 euh, suñu émission boobu am na lu ñu waxoon ci mouvement bi fan lañ ko mën a farale ndax mouvement la boo xam ne bi bon waxoon nga ne mouvement politique la mouvement composite euh, mouvement équilibriste la mouvement hybride la daanaka mu nekk ay baat yoo xam ne yi ñun xamuñu ndax da nga koy faralee ci opposition bi ndax da ngeen ànd nguur gi wala fu ngeen fare tey lu bëri jaara na ci diggante bi waaw euh, loolu dinaa ci sa war a tontu parce que nit ñaa ngi def amalgame Idrissa Samb élément wu Pastef la ci Ousmane Sonko la far mais la personne de Idrissa Samb man sama jëmm ji amul solo te du looloo indi laaj bi laaj bi mouvement bi nga laajte. Jolof en marche avant ñuy dem élection présidentielle position bi ñu amoon mooy ñun képp ku amal njëriñ Jolof képp ku amal njëriñ askan wi boo ñu woowee ci kaa ñu ànd liggéey ñu ànd ah élection nag am na ci diggante bi ah ñu ne nag. bi ñu xoolee càmbar xool situation réew mi xool situation jolof gis ne ubli am na fàtte nañ ñu nangam nangam nit doo xam ne lii lépp amul ba pare nag ñu jox la base kàddu gi joxe waa daara ñu wax bureau élargi waxtaan ba gis nañu le mouvement Jolof en marche dafa war dem ci élection présidentielle yi ci lu ñu décidé nag ne malgré tout comme def nañ un diagnostic xam ne le président Macky Sall dafa am document bu muy liggéey muy le plan Sénégal émergent ñu gis ne fii ba 2035 ci li ñu gis ndax ñun doonut ñoo xam ne dañuy wax rek ci àll bi dañu dem Promoville dem feneen dem feneen dem agit fu ne ñu dugg fa mais suñu demee dañ leen di laaj lan la ñu prévoir pour daara lan la ñu prévoir pour pour en tant que bi nga xam ne mooy capitale u mouvement Jolof en marche rien n'est prévu d'ici 2035 après ñu xoolaat ñu ne am na PUDC am na PUMA am na am na mais ci biir PUDC en tout cas ci suñu gis-gis ñun ba jamono yi ñuy dem di allié wu ak la coalition Sonko 2019 aucun acte n'a été posé à Daara Jolof les rares actes yi nga xam ne def nañ ko ci Jolof ay piste de production la maanaam ay rang-rang ñu rafetlu ko waaye bokk na ci liy jox tuberculose nit ñi bokk na ci liy feebar nit ñi lu baax la. mais présidentielle lañ doon wax de waxuñu woon local de. élection présidentielle laay waxee pour wax position mouvement Jolof en marche ba léegi dafa. parce que boo ko waxee noonu da ngay xaw a juum parce que am na ci ñoo xam ni jamono jooju yaa ne woon am na ñoo xam ni bokk nañ ci APR ñu ngi ci na ñoo xam ni bokk nañ ci yeneen parti ñu ngi ci mouvement bi euh, loolu yaa ko dëggaloon dañoo amoon discipline boo xamante ni yàlla moo ñu dogal mu doon suñu force comme ni nga ko waxee am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci yeneen formation politique bien que nag loolu barewuloon ci mouvement bi ndax mouvement bi cëgg gi ñu boole woon maanaam càllale gi mooy njëriñu daara njariñu jolof moo ñu boole woon dañu defoon fii des comment des appartenances partisanes maanaam fii laa bokk ak couleur bi laa am daanaka boole wuñu woon ñun njëriñ moo ñu boole woon au niveau local peut-être waaw foofu laay waxee au niveau local présidentiel lañ génn nañoo am problème bu doon ki nekk APR wala ki nekk ci beneen parti ñëw ne man damay dem te sama président laay jàppale bu ko waxoon tamit dañ koy bàyyi libre cours mu dem jàppale ko suñ demee élection dimanche lundi ñu ñëwaat bokkaat li ñu boole muy njëriñu ci mouvement bi ah, yéen ngeen xool ne xëy na kat daara dañ koo fàtte Sonko la ànd ak lan moo nekkoon seen position seen mooy gis-gis boobu ñu am moo baax ñoom ay nit ñoo xamante ni ànduñu ak président Sall rek tak seen bët ne yaa fi nekk wiiw président déedéet ñooñu dañuy xalaat yor ay xalaat di gis ne li ñu wax comme jaño si que ni Jolof dañ ko fàtte daara dañ ko ñu gisandoo ko ak ñun préjudice ñu ne ñoo koy a réparé ndoo ensemble nan lañ koy réparé ndoo mooy ñu ànd ak mouvement politique bi nga xam ne mooy Jolof en marche fàtte fu ñu bokk fàtte suñu couleur ñëw ànd ak yéen dañ ne ñu su ngeen ànd ak président Macky Sall ànd ak ñoom su ngeen ànd ak moom du ànd ak moom loolu nag bokk na ci li ñu boole woon ñu am force boo xamante nee naa cent vingt cinq pour cent su ma ko kenn ku yëkkat wax ne euh, euh, loolu nag dafa yombal suñu liggéey ba jour bi ñuy def réunion à nee naa la loxo yëpp a jóg seen politique kenn xamu ko boobaa ah, kon kay ñooñu seen politique mooy politique dañuy ngarale déedéet ngarale non parce que présidentielle la ñuy wax euh, Idrissa parce que loolu mooy problème bi parce que bu fekkoon élection locale la mën nañu comprendre li ngay wax nii na xëy ñoom dañoo fàtte lépp ne daara la xool mais lii élection présidentielle au niveau national waaw élection présidentielle mais enjeu yi tamit local yi maanaam dëkk gox goxaar yi dañ cee am njëriñ ndax bu dee présidentielle la Macky Sall le président de la république moom mooy yor sa politique mooy déterminer politique boo xamante ni day wàcc ba ci gox-goxaat yi ñooñu bu ñu gisee ne politique bi le président Macky Sall déterminé gox-goxaat yi ñu dëkk gisuñu seen bopp ils sont obligés aussi jéem a changer dara loolu ça n'a rien à voir parce que ñooñu tamit ah peut-être c'est pas des responsables yoo xamante ni yor nañu ay section wala ay secteur wala ay nangam ay des hommes libres lañ libre d'esprit nag. mais ay ay risque nga doon def yow sa bopp risque mais ñi nga ñu bëree bëri en général ay lañu ah? waaw risques yi de jël nañu ko sax ba macha allah waaye nag dama ne nit bu amee ñaanu wayjur ànd ak ñu ànd ak ñaani wayjur te composition mouvement bi ñëpp ay kilifa lañ ñoo xamante ni nit ñu baax lañ. jàpp nag ne seen taxu leen a jóg mais intérêt wu gox bi jaral na leen ko ba tax na dégg naa ci ay menaces seen liggéey sax jaral na leen ko. jaral na leen ko mais dama jàppoon nañ ñun du ñu commettre ah, réew mi ñu nekk réew euh, réewu droit la jàpp naa ne nit ku nekk au fonctionnaire wala leneen li lay xañ sa liggéey mooy nga def faute lourde. te jàpp naa ne ñun ci nit ñu yaree tàggat ñi ci gëm naa ne du ñu dugg ci loo xamante ne ñu yàq si nga si jànkonteel dëgg-dëgg vraiment position bi nga amoon ànd ak euh, Sonko dinaa ñëw ci euh, mouvement euh, seen seen lëngoo boobu diggante mouvement dem ak passé bu sunko lan nga ci dund ci euh, loo xam ne ni vraiment lu métti la en tant que inspecteur des impôts et des domaines indi Ousmane Sonko daara ñu gis mbooloo mi fi amoon ndëgg sarax yi nga xam ne ñi ñi ngi ko doon ñi ngi ko doon wax loolu lépp ngeen gëmba tox lu indi ko def li ngeen def waaw ndëgg sarax de wax dëgg yàlla am du ma ne amu ci mais yëguma ko parce que tamit man dama mënoon nekk koo xam ne damay def différence entre liggéey bi ak politique bañ naa ko ba campagne électorale yi jour yi may ñëw daara yëpp mooy ajjuma su ma wàccee taal sama oto dem fa ajjuma samedi dimanche ma xëy ñibbisi delluwaat sama liggéey altine parce que li ñëpp xamul mooy du ma tardé benn bés ci sama bureau ba ndax xam naa lii sama teraanga ak li tax nit ñi xam Idrissa Samb. te nga bàyyi xel ci position yi nga nekkoon. position yi c'était erreur bu ndaw boo ko defoon rek peut-être ko. moo tax du ma leen ko may parce que nag am na ñu bëri ay làmmiñ ñaaw yu ma déggoon kii bu ma gisaal gañee da koy dàq ni mu def ki mu àndal la koy def ma ne leen ñooñu seen yéene la ñu wax waaye yàlla dogal na bi may nekk inspecteur des impôts président Macky Sall nekkul président. te bu ma yàlla may dund ak wér dinaa continuer nekk inspecteur des impôts président Macky Sall dina fi jógee kon man dama ne décret bu du décret yàlla ndax nag daam ñun euh, fi ñu nekk nii ginnaaw su suñu wajur ak ndogal yàlla mérite moo ñu fi indi ñun du décret boo xamante ni talaata lañ ko jël wala àllarba boo xamante dañ koy jëlaat ah le président nomme aux emplois civils et militaires waaye ñun de li ñu nekk yàlla ak suñu mérite la ak ay ay ay ay ñaanu doomu aadama yi kon teguñu fa woon doole nag am na comme ni ñu def Ousmane Sonko mënoon nañ ma ko def parce que réew mi moom mooy loolu mais yaakaar naa ne ci Idrissa Samb de duñ ko jàppee sport professionnel mukk mukk mukk ci li ma yaakaar tant que maa ngi ànd ak sama xel bay def yenn erreur nee naa la bi ñu paree élection yi am na ku ma woo ndeysaan am ci man cofe loolu ne ma dégg naa dañ la affecté kee ma ne ko ah loolu de information la bu ma jotagut waaye bu ñu ma fa affecté woon it ma xam ne liggéey rek lañ ma fay yóbbee dinaa fa dem liggéey fu ñu ma mënti yóbbu foo xam ne impôt fa nekk ak i domaine danaa fa ndax man aw ma préférence ci ab site wala ma dem non non man loolu du sama parce que bi nga ko indee euh, daara ak mbooloo mi ci amoon lépp ndax amoon nga ay menaces yoo xam ne jigéen ci état bi pas menace mais amoon naa ay ay ay invite invite maanaam ay nit kilifa bu mag woona ma kilifa bu mag nag woo na ma na ma soo bëggee tey. président gouvernement bi déedéet bokkul ci gouvernement bi de. mais xam naa ku jege kilifa gi la président ne ma président de gis na li nga liggéey Jolof gis na li nga indi foofu ci mbooloo ah yàgg na laa xool nangam nangam mais gis na ne gars yi toppatoowuñ leen nangam nangam frustration yi dina ko faj est-ce que pare nga pour ma booleel ak président c'était un jeudi samedi mu recevoir la man ne ko ah ñoo ñun nag wax dëgg yàlla béy wéy na mbuus te ay gor lañ Ousmane Sonko gor la mouvement dem ay gor a ko composé bu ñu waxee ak moom ba pare ah non mënuñu ànd ak président de la république ñi teg ci télé bu ñu recevoir tey ñi dem xalaat ci dëkk bi dañ ne ñu teg ci télé yi wala teg ñi cere rajo yi ne nañ wala wuuji nañ loolu dina indi xel ñaar ci boppu nit ñi ma ne ko nag dimbale ma rek ñun ay xale lañu ak i mag yoo xamante ni gis-gis bi ñu am ci jolof bokkul ak li ñu gis fii kon bàyyi ñuy eggale suñu yëf ci lim ma tontu mun ne tu as parfaitement raison ah ñoom li ñu waroon def defuñu ko effectivement bi mu coupé rek. am na beneen kilifa boo xamante c'est le ministre des finances de l'époque Amadou Ba il a fait appel à moi pour me dire que j'ai besoin de toi par l'intermédiaire de sa secrétaire madame Soumaré invité ma ne ma le ministre des finances nga dem ndax mooy sama supérieur hiérarchique parce que tamit damay def différence entre ka a woon ne ma président te président woom bu ma woon président Macky bu ma woon mooy sama kilifa parce que c'est le président de la république te man kilifa wu sama kilifa mais ma woo rek ça dépend ci ko wax dem bu mënu ma dem te yëguñu ko ndax ba ma demee ña ma war a wax ak ñëpp wax naa leen Amadou Ba xaw ma lu may doyee le ministre des finances la ma nekk inspecteur des impôts moom mooy kilifa wu directeur général des impôts kon xaw ma ndax su ma demee ci dossier la may wax xaw ma ci leneen la may wax damaa dem uy ji ko mu wax jox ma ma wax jox ko mu jox may conseil yu am solo nag wax dëgg yàlla am nekk conseil bi kay xanaa bu njëkk mooy dellul gannaaw fi nga teg sa tànk du foofu parce que moom ci APR la bokk wax dëgg laaj na ma nag bon loolu defutoon li ko war ah kay ah kay Amadou Amadou ministre bu xàmmee la xam na ne kii collègue am la d'abord parce qu'il est inspecteur mais il faut la convaincre pour na la ñëwal ci ah, ah, loolu jéem na loolu wax dëgg fa yàlla mais ak cër nag bu mag sëkk considération li mu njëkk xam mooy xam ni kii may wax ak sama collègue la sama nawle la ministre la des finance dëgg la waaye maa ngi mooma yem brevi ENA lu ñu am daf ma traité ah ma jox ma sama cër bi ma am yépp li mu ma njëkk a wax mooy très courageux et tu as du mérite dëgg fa yàlla laaj ma lan moo la yóbbu opposition lu tax nga ànd ak Ousmane Sonko et cetera ñu joxante cër mu laaj ma ma wax ko ne ko du man ma décidé ànd ak Ousmane Sonko du maa décidé contre le président Macky Sall mouvement bi ma yàlla dogal ma jiitu ko ñun ñoo def ay diagnostic ne kii la ñuy àndal ginnaaw bu ñu amee un protocole d' accord ci loo xam ne ëllëg bu yàlla dogal Ousmane Sonko jiite réew mi jolof gi ci boppam looloo tax ñu ànd ak moom. il m'a invité à venir les accompagner ma ne ko ah wax dëgg yàlla la ma. toon ci poste sax diglu ko. déedéet man nag daam yàlla dogal na fa ma bokk dara tiitalu ma ndax pour man li Youssou Ndour naan am na sañ sañuy wax na xëy na boo ñëwee ma jàppale ci poste bi yooyu loolu tey bu ma ko waxoon sax day mel ni damaa am njëg loolu moom defu ko wax dëgg yàllam am gëm naa ne ministre Amadou Ba jox na ma cër xam na li ma dal li ma li ma day xam na fi ma toll ba gëm naa ne ah, du traité ak man noonu xanaa woo ma ci teraangukaay kaay jàppale ñi ndax sama mag la tamit am na si droit mais bëgg raisonné ci man kaay ma jox la nangam gâteau baa ngi nii déedéet loolu moom yàlla dogal na li ma wax léegi ñun euh, Youssou Ndour li mu wax bu fi yemoon sax mu neex ndax ñun amuñu woon waajur wu am salaire kon bu ñu bokkee ci la haute hiérarchie administrative li nga xamante ni tey inspecteur des impôts ku ne xam na ne ñu ngi sant yàlla bu baax kon man bokk gisuma poste laa wax ci Sénégal je le dis solennellement poste bu muy tiital parce que maa ngi sant. bi nga wax dëgg fa yàlla du sax poste ministre a lum xanaa poste ministre ëllëg ko doon xalaat xam lan moo ñu fay dugal daam pour nan lañ mën a amee appareil bu ñu mën a jàppalee suñu askan fexe ba ñu insérer wu fexe ba ëllëg lépp lu war ñëw ñu ñu ne lekkat gi kat nañ ko dëngal yóbbu ko Jolof loolu de moo ñu dugal boobaa ci politique wala ñu bëgg poste de boo xam ne poste de responsabilité mais nee naa la du teraanga yoo xamante ni ministre mën na ko jox wala direct direction nationale wala ab poste assemblée déedéet ndax ñi ngi sant yàlla bu baax on gagne honnêtement notre vie nag ñi ngi am teraanga yoo xamante ni bu ñu nekkoon ministre mën na am du ñu am lu ëpp loolu bu ñu nekkee directeur national du ñu am lu loolu kenn du ñu sonal suñu liggéey daal ñu ngi ko def correctement di gagné suñu suñu vie kon suñu yemee ci lool rek ndax bari la amut xam am barkeel la ak doylu te ñun li ñu am mu néew mu bare doy na sëkk ndax nag am na ñoo xam ne ñoo bokkoon première dame ñi ma bokk ak CM ñi ma bokk ak terminal ma leen woon jàng sama ndey peut-être leen di liggéey seen ndey yàlla suturaal ma ma am teraanga ju ñu toll kon bu ma xoolee ñooñu rek war naa doylu bañ a xool li nga xamante ne sama morom wala kenn am na lu ëpp loolu. justement ñu avancé tey ban bilan nga tiré ci seen euh, ànd ak Sonko maanaam mouvement dem ci ànd ak moom Sonko ci élection présidentielle yu 2019 yaakaar naa ne euh, euh, bi. ah kay offre en marche bilan satisfaisant la ñu tiré ci compagnonnage avec Ousmane Sonko ndax ku ne xam na ne opposition la ñu nekk ku ne xam na ne Ousmane Sonko jox na joxuñu un franc kon gëm-gëm ak conviction lañu ñu àndee ak moom lan la ñu def nous sommes arrivés deuxième presque 2000 voix ñaari junniy baat ñu am ko ci Daara Jolof am 5000 voix dans le département de Linguère alors que président Ousmane Sonko de bi muy dem élection législative su ma jumul amul 200 voix dans le département kon dëgg la phénomène Sonko amoon na waaye liggéeyu mouvement Jolof en marche nee naa la presque les dix-neuf communes du département Jolof en marche teg na fa tànkam ànd coalition Ousmane Sonko bi nga xam ne le mouvement MED ak ñeneen ñi nga xam ne ay soppe lañu dem nañ fa te nee la un franc Ousmane Sonko génn ko jox. sa xaalis ah samay composition ñi nga xam ne muy jigéen ñi ne ci mouvement bi ak mag ñi góor ñi xale yi ndaw ñëpp daan cotiser su demee ba manqué Idrissa Samb mi nga xamante ni moom moo jiite ah nekk euh, leader bi génne xaalisam. mais am na ñuy duus duusal. waaw voilà benn voilà la rek ku ne da ngay xool li sa poos am rek nga def ko mais li ci des yàlla xamante ne du handicap handicap la loolu moo ñuy handicapé ndax ku ne xam na ne ñun bu ñu amoon ay moyens yi waa pouvoir bi am kon non sa qui est sûr mooy suñu discours nit ñi dégg nañ ko mais dafa am ay paramètres yoo xamante nii lalu na ci élection euh, campagne bi ndax bi ñu indee Ousmane Sonko daam euh, renseignements généraux yeeg boucle télé yeeg yëpp la ñu mobiliser à Daara la doon wax ba ci discours bi ñu sax dafa ne daara euh, avancée de la mer à Louga yooyu yëpp may bës suñu manifestation bi ba xam ne moom Ousmane bi muy yegg si sama koñ daf na ma fii nooy na nañ dem Louga ma ne ko nañ dem place publique di fa gis mbooloo moo xamante ne civilisé nañ ay mag ay jigéen ay góor ndaw bi mu demee nee na moom moom ak entourage nañu li ñu gisagum daara gisuñu ko fenn. bay sa omi tànk ndax euh, ñi nga xam ne ñoom nga ànd ak si mouvement bi ñu ngi cotiser loo xam ni dana tax euh, xëy na mouvement bi dem. mouvement bi li koy yóbbu dëgg la du ay cotisation waaye ñi ma àndal wax dëgg yàlla am fu ma tegee sama loxo ñu teg seen loxo. ñu ne mouvement bi mouvement Idy la comme ni ñuy waxee PDS Abdoulaye Wade moo ko moom yeneen ak yooyu. waaw yàlla dafa dogal ñetti nit fu ñu dajee sax di julli ñi ne am ku teg ca kanam dañ maa teg ci kanam rek waaye ce n'est pas parce que maa ne ci kanam parce que maay financé déedéet ku ne ak wërsëg wi la yàlla jox yaa ngi koy génn ci mouvement bi muy xale bi. góor bi yaa koy financé. du ne lu ëpp maa ko financé waaye maa ngi ciy joxe daal keneen a ngi joxe la tolloog poche am ak la mu yéene. maa ngi doon wax ci suñu bilan wu. accompagnage ak président Ousmane Sonko damm est-ce que yëngu na bi ñu defee campagne bi indi meeting Ousmane Sonko on a réussi le l'exploit ñaari ministres yi daawul wax. di député yoo xamante nii ku ci nekk yaa doon tibbul sa morom tànk ay ñoo xamante ni daawuñu waxtaan. non mooy ñuy composer la paire de du département que ce soit les deux ministres Aly Ngouille Samba Ndiobène Mame Bounama Sall Aniya Mbengue maa ngi leen di ñëw ñëpp Ousseynou Ndiaye nga gis leen ci benn oto lan moo tax parce que la menace de Ousmane Sonko et du mouvement Dem la force politique bi nga xamante mouvement Dem génn na ko moo leen liggéeyloo ñoom xam na ne ren li ñu liggéey su mouvement Jolof ne woon bokkutoon ci élection yi kon ñoom duñ jógee Dakar gi sax dem daara di politique dugg nañ ci commune yëpp di campagne ndax lan xam nañ ne Jolof en masse bokk ci woon ah mais bokk ci woon parce que ministre de l'intérieur la amul woon droit bokk waaye moom ak i élément am yëpp wàccoon nañ sur le terrain mi ngi doon coordonné depuis fii xam na ko li may wax parce que nag ñoom ñëpp ils étaient menacés bu ñu góorgóorlu la quand no moom non Aliou Nguy mënuma woo parce que sequñu ko ci politique wax dëgg yàlla woowu ma amul sax lu may wooy suma ma lu may wax xanaa boo ma gañee gañe ma ndànk la may wax peut-être heureusement boo waxuma ko mais je diir dire que fexe nañ ba prouesse boo xamante ni ñu daan saagante ñi daan tamante dëmm tey ànd nañ ngir lan menace su mouvement Jolof en marche ak Ousmane Sonko ba quartier bu nekk Jolof daara rek dugg nañ fa village bu nekk ci Jolof dugg nañ fa ngir lan xam nañ ne menace am na kon ñu liggéey loo leen su ma demee daara Jolof ba Jolof en marche am yenn tolof tolof yi Samba Ndiobène moo wàcc sur le terrain en tout cas fu ñu jaar joxe fa 2000 Samba Ndiobène joxe na fa 200000 wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xamante ni yàq na. kam gergaañ rek. non jo gergaay waaw ñu ne fu ñu dem. de conscience la woon de joxe 200000 fu ñu joxe 2000 pour wax rek ne ñoom ah fu ñu dem dugg nañ dem nañ ba suñu biir kër gi ma ju dëkk joxe fa xaalis pour pour ñu voter leen dëgg la nag am na ñoo xamante ni am na ñu njëkk. am na impact hein. bu baax sax ah yàlla xamante ne xaalis bi. soble si am na ku ko posé léegi terre bi ah. ciment bi ak ki nga xamante ni bokk na ci ak ki nga xamante ni dafa dem ci imaam yi dëkk bi yëpp dajale leen ne Ousmane Sonko rebelle la. wax wax ju ñaaw joo xamante ni pour man cim réew kenn waru ko def. ngeen jaar fam jaaratoon rek ngeen weddi ko. mënuñu ko parce que loolu gis nga fa yow egg du man eggu fa ñun dañoo jàppoon rek waa Daara ak Jolof discours bi ñu leen wax ne ñun lii moo tax ñuy ànd ak Ousmane Sonko dana leen doy. comme doy jël nañ seen décision jàppale président Macky Sall ah. du menace de waaye nañu assumer rek 2024 sori na li ci des bëreetut. voilà mais mais seen diggante léegi parce que présidentiel moom weesu nañ ko ànd ko am na ñoo xam ne sax dem nañ ba léegi dañ lay wax ne léegi ci Sonko nga bokk léegi vraiment opposition dama xamul nag dem léegi ak Pastef fu ñu toll. waaw dem ak Pastef nag dimanche ca ngoon la jeex ndax nag am na protocole boo xamante ni dañ ko bindoon. pour ne Ousmane Sonko dañuy ñëw jàppale la ginnaaw bi ñu defee diagnostic wax ci Jolof lii moom it mu wax programme bi suñu programme àndee daam dinaa la xamal ne ñun démocratiquement la ñu àndee ak Ousmane Sonko ndax dañuy écarter le président Macky Sall. ne léegi les quatre candidats à savoir Issa Sall Madické Niang Idrissa Seck ak Ousmane Sonko danañ dem seeti ñëpp ñaar ñoo ñu ubbil seen bunt ñeneen jotuñu leen gis muy Idrissa sa on est allé le voir defal ko exposé bu am solo par l'entremise de notre grand frère Ali Salah Diop ñu ngi koy nuyu de passage mais Idrissa bi ñu demee wax ak moom lan la mouvement politique Jolof en marche di def ci Jolof dafa ne su ma amoon dans les trente cinq départements du Sénégal trente cinq dem kon mën naa toog duma campagne parce que xam na lan lañ lan lañ man ñun ñu dem malheureusement ànduñu ak moom parce que Ousmane Sonko moo ñu convaincre ñi ànd ak moom bi ñu àndeek moom tamit protocole bi mooy ànd ak moom gagné ànd ak moom continuer liggéey bi bu élection local amee ñu ànd ak moom bu di élection législative àndoon ñu am parce que dañu jàppoon ne ci biir année 2019 bi calendrier électoral bi dañu ko respecté. justement mais loolu comme amul. wax dëgg yàlla am la Jolof en marche tamit. Euh, ginnaaw bi ñu réunir dañu dañuy laa jëlaat seen indépendance Jolof en marche bokkul Pastef bokkul coalition Sonko 2019 jëlaat na cëggal guyam moomaat boppam di liggéey. di liggéey ngir lan njëriñu askanu daara njëriñu askanu jolof. ñi ci nekk ñëpp nekkuñ ci benn parti politique nekkuñ ci benn mouvement bu du mouvement Jolof en marche. Euh, am na ñoo xamante ni dëgg-dëgg ñi ngi ci woon APR mais léegi seen penchant maanaam seen xol ak seen xalaat yëpp mi ngi ci Jolof en marche parce que nee li ñu boole du politique politicienne ñun njëriñu askan wi njëriñu gox bi moo ñu boole loolu moo tax loolu ñun dérangé wu ñu woon nit bokk APR wala mu bokk réew mi wala mu bokk Pastef ñëw ñu ànd liggéeyandoo. Mm. voilà mais je dis daal Jolof en marche. bokkul Pastef sa Samb mi usmaan Sonko sama mag la sama xarit la ku ko jox cër la jàpp naa ne moo gën ci Sénégal ba tey ji loolu laa gëm. ba tey ji ba tey jii damaa jàpp ne Sénégal bu ñu bëggee dox Ousmane Sonko daan ko jox réew mi ndax jub na bëgg na réew mi xale la am na dëgër na fit. wax ju ñaaw ju nag mi ngi jógee fu nekk ñaan ko Ousmane Sonko nii Ousmane Sonko waaye ku def 15 ans. vision vision vision nga gëm yow. gaw vision Ousmane Sonko ndax man bokkuma passif comme li ma la wax. mais ah, l'homme dès lors que nga ne na mu doxal gëm. non ba tey mënu ko gëm parce que bokkutuma mais dama jàpp ne Sénégal ci élection yi suñ ko joxoon réew mi dina ko redressé ndax la preuve lépp lu mu leen doon wax leen ko moytu loo amaat na. tey ñu ngi nii ñu ne suba dañuy yokk électricité bi waxoon na leen ko lépp lu ñu fi doon bañ tey am na fi ba ñu voté président Macky Sall ñaari weer lañ ci teg carburant yokk yoonu yokkute lañ wax de ba 2024 maa ngi ñaan jolof jolof bu kenn jooy nag ndax nañu assumer suñuy choix ñun ñoo ko fal. nañu ko nangul jàppale ko ba 2024 mu yokk rek nañu ànd ak moom di yokk alors loolu ngeen euh, gëm mais man ba tey vraiment laaj bi day delloo ko ñëwaat xamuñ dem vraiment fu mu fare parce que li ngay wax ni moom dafa lëndëm dëgg dëgg fare wu pouvoir fare wu opposition fare wu ci euh, fu ñoom xamuñ fa fare dem daal pour l'instant mën naa wax ci opposition la nekk li may wax nag gis-gis la ndax ànduñu ak APR ànduñu ak coalition benn Bokk Yaakaar kon opposition naturellement la bu nekk mais ci biir opposition bi dañu am suñu liberté mais pour dire dem dal xam nga fan la nekk daam mm. ci soxlas askan wi liy jàppale askan wi ja askan wi ne ci jàmm foofu lu mouvement Jolof en marche nekk ba gis li ko fiy dindi wala lu ko fiy gën a dëgëral mhm. voilà d'accord très bien mbokk yéen ngi déglu seen émission pencum Jolof ci Ferlo FM Jolof Actu ak Africa 7 ñu dalal inspecteur Idrissa Samb nekk njiital mouvement euh, Jolof en marche alors biñ ne dañ lay dalal gis nga li nga xam ne mooy laaj yi nga xam ne laaj nañ la ko mais d'abord xam naa ne balaa ñoo euh, jeexal action yu bëri bëri yéen a ngi koy euh, def lépp da ngeen koy politique wala euh, ba tey rek da ngeen ko def ni social bi leen yëkkati woon rek. social rek nag la gis nga politique nañu wax ne ay la yéwén doon na. mouvement politique la de. mouvement et social la. mouvement bi dafa social sax d'abord mouvement bi def mënu leen ko xàjjaleeg li nga xam ne lii vraiment euh, moom mooy euh, action yi ngeen def. déedéet action yi ñuy def yëpp mouvement bi moo koy porté mais mouvement bi. d'une partie mouvement politique la parce que joute électorale yi maanaam élection bu amee mouvement bi dina bokk. kon mouvement politique la bu euh, question politique posé woo ci réew mi suñ ñu laajee suñu xel ak suñu xalaat danañ ko wax kon ñu ngi politique. mais ginnaaw politique du métier politique ay jamono la day weesu. doonut loo xam da continuer di ko def bu weesoo rek ñoom dañuy delluwaat ku ci nekk ca waar wa nga ne woon dem liggéeyi. continuer ci social ak développement. loolu tax bi yi bi mu weesoo rek. tegun ci ñaari weer koor gi daanaka li ñu njëkk def mooy conférence religieuse la am mu néew mu tuuti ñu génne ay suukar ay ceeb ay tàndarma jox ko way néew ju doole. bi ñu ci jógee le 7 juillet 2019 bii def nañ fi caravane médicale bu mucc ay boo xamante ñun ñoo ko def ci mouvement Jolof en marche woo képp ko dëkk Jolof ñu jéem laa faj ci suñu saxaar su poos moo tudd weer ñu def seet seetal bu mag ci dëkk bi. di setal dëkk bi ñu ne déedéet ñu jéem a électrifier maanaam taal lampe solaire yoo xamante nii doo fay courant ñetti armée li Jolof en marche di ko def pour man daam loolu muy politique bu dee politique da ngay bàyyi ba euh, jamono ñëw nga indi xaalis nax nit ñi gañee ñi am post wala nga delluwaat loolu politique politicienne la ñun ñu lool ñun dañoo am métier te mouvement bi ñu ci des ñëpp dañoo am métier ku ci nekk boo politiquee samedi dimanche bu altine da ngay xëy alors justement Baba Diaw euh, moom itam laajam yi euh, gis nga ko euh, yaakaar naa tontu nga ko indirectement ne sa ànd ak Ousmane sunk amul lenn loo xam ne da nga koo ci rëccu ci présidentielle 2019. déedéet déedéet bu démb doon tey de bu mouvement bi d' accord man d' accord naa ndax am nañ ci expérience bu am solo buñ ci am ci ànd ak moom liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib. te wax dëgg résultat yi ñu ci am tamit xeebuñu ko. voilà justement euh, bi ci mujj boo xam ne bii def ngeen ko ni ay action mooy ambulance bi nga xam ne bii indi ngeen ko barki Dembo Ndiaye euh, ngeen euh, xaw ma damay wax nga may ko hôpital Daara Mbayeen Seynabou wàdd wala ngeen may ko. waaw ñu may ko la parce que du Idrissa rek mooy maye Idrissa. maa dem de. déedéet du mouvement dem de lii Idrissa Samb mi dëkk Daara Jolof. dëkk Jolof dañuy jàpp nag ko bëgg seppi rek waaye. Euh, dem moo nekk ci gannaaw. dem nekkul ci ginnaaw parce que nag ñun ragaluñ. bi ñu ne caravane médical dañoo tudd dem. bi ñu ne nettoyage dañoo tudd dem. bi ñu ne taal arm lampe armée dañoo tudd dem. waaye ay la yéwén. bii sama mag suma tonton Ali Ndiaye Maritalia moom entreprise Alga. ñoo def constat xam ne ambulance soxla nañ ko Jolof soxla nañ ko Daara soxla nañ ko centre de santé maam Seyna bu ndaw. ma dem diis ko ko mu yëkkati la ko yàlla terale la ca des ma jël sama teraanga ñi dem ba France jënd par l'intermédiaire de suñu mag El Hadj mu jënd ambulance bu médicalisée bu ci ayib ñëw doote ko centre de santé de dafa dal rek mais ambulance bi nee naa la centre de santé bi docteur Diop maa ngi koy nuyu de passage moomu ko centre de santé bi moomu ko euh, district Daara moomu ko Jolof gépp ko moom. non boo ko bëggoon def lu na nga koy yóbbu hôpital Elisabeth a am na am na ambulance am na tax. déedéet loolu taxul mais hôpital Elisabeth Diouf am na ambulance comme ñii amuñu te soxla nañ ko nan leen ko jox bu yàlla indee beneen ambulance ñu jox ko hôpital Elisabeth Diouf bu ñu amee yeneen ñaar ba ñett sax hôpital Elisabeth Diouf bu ngën a neen ak bu daara municipal bi nekk Manko yëpp ñun am nañ yéene jox leen ambulance. moo tax na jël ambulance ba def sa tur ak turu Aly Ndiaye Mauritania. waaw loolu. dinaa ci ñëw kuy xalam di si jaay. ñun euh, daam du ñu njissal nee naa lépp lu ñu def ci askan wi bu dee njissal yàlla bu ñu ci yàlla euh, jox benn teaba ndax ñun duñu ñisal ñun dimbale nañu nit bëccëg dimbale nañu nit guddi duñu ko wax fenn xanaa li ñuy wax li munta ñàkk léeg-léeg nit ñi ne. justement tur bi lu tax. tur bi sama grand docteur Diop baaba Diop moo ma obligé na ma di nga ko ci def ma werante ceeg moom sax mu ne ma di nga ko ci def bind ci offerte ambulance offerte par sa Samb ma xam ne su ma defee sa Samb rek dinaa suul jëf ambulance bi man rek jënduma ko dëgg la de def naa ci lu doy waar ci sama xaalis mën naa wax ne li ci ëpp mana waaye nag sama kilifa Aly Ndiaye Maritalia jàppale na ma ci bu baax te nag ku tabax hôpital am nga ay njëgu ambulance waaye yàlla dogal na jox na ma cër boo xamante ni lu ma bëgg ci moom am ko ba ma demee ne ko ambulance laa bëgg waaye am naa nangam lii moom a manqué mu il n'a même pas hésité fekk ko fi sax Moussa sama rakk la ma booleel bi nekk directeur général Alga te Alga dafa am loo xam ne responsabilité sociale d'entreprise maanaam ni so mais daam njistal amul Sonatel day may ambulance ay la danaan fondation Sonatel moo ko bind. Sénégal ñu koy félicité waaye nag bu ñu bu ñu defal publicité waaw waaw dama bëgg wax ne bon nga baal ma sax ci pub bi mais structure yi nga xam ne ñoo ëpp solo ci réew mi dañuy may ay ambulance dañ bind seen tur kon warul déranger kenn te nee naa loolu dama ko bañoon docteur Diop moo ne ma mënul ñàkk xam nga li tax mu ne ma def ko daf na ma mën na am ñu la ëppalee ngi ci daara pneu oto sax defuñ ko fi kon boo dina leen def benn kii boo xamante dinañ ci mën a jàpp naa ah, ñun kat Idrissa mii di suñu rak wala di suñu yarbaat bu yëkkatee joxe ambulance ci daara wala mooy ko ah, centre de santé bi ñun nañu dem guy tëdd xool nañu soxla nañ nangam ñu jàppale leen ñi nañ dem defal leen nangam loolu tax mu ne ma lu baax dañ koy siiwal waaye defuma ko ngir njistal ndax gëm naa ne ñun daara wala jolof mu ñu fee def dara ba gis ci suñu bopp te taxuñoo jóg très mais fee bi ci gën a euh, marqué euh, doomu aadama yi mooy ñi nga xam ne ñoo fa ñëwoon alors gis nañu nga bi mbir jeexee nga bind euh, say bind am ñoo sant am ñoo ŋàññ ñun nag comme train bii ñëw heure moom intéressé wuñu ñi nga ŋàññ lañ njëkkee am na sax samay naataangoo yoo xam ne daal dëgg-dëgg xamul tax inspecteur waaw ŋaañ ñi sax du ma ko def ndax man wax dëgg yàlla am ñu jox ku joxe cër laa te ñi may presse bi aussi samay mag rek ci nekk ñu jiite ñi jiite presse locale bi am naa ci rak mais samay mag rek ko jiite kon du ma ci manqué respect kenn waaye constat la daam le 7 juillet au moment bu bu ñuy def caravane médicale ci école cadre benn journaliste ñëw fa lu dul Daouda moo fa ñëw 15 heures def ak man interview dem amul kenn kenn ku ñëw lii tamit wax dëgg yàlla am ku ne yëg na ko ku ne dégg na ko te nee naa la ñun action bu ñu def ci ñaari rajo yi dañuy dañuy fay pub kon ñoom yëg nañ ko. mais xëy na bii moom bokku ci ambulance bi. soxlawu ko ndax bii siiwaluñ ko bëggun mu siiw joxu leen ñi nga vraiment am na ñoo xam ne joxu leen demande couverture. soxlawu ko ndax wax dëgg ndax leen. wax dëgg yàlla am woowuma leen. woowuma kay waru leen a ŋàññi inspecteur non du ma leen ŋàññi mais dama jàpp la ñuy def bu dee tas xabaar kese moo leen tax a jóg mënuñu woon tas xabaar ci semaine bi lu ëpp loolu. dégg naa ko rek damaa war a dem. dañu war a dem parce que nag looloo. c'est pas une obligation inspecteur. pas dëgg la. Hmm. mais dama ne su dee information kese kese lañ bëggoon. Hmm. mënuñu wax ci département bi semaine bii. lu ëpp lu lu yàlla dogal. mu jaar ci suñu loxo ñi def ko. kon waruñu woon xaar ñi di leen woo. mais du ma joxe prétexte parce que beneen événement beneen xew-xew dafa amoon tamit ci ci ci département bi. yaakaar naa journée d' excellence la boo xam ne ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo ko organisé woon mais est ce que ñoom wooñu leen de couverture. dama ne journée de l' excellence bi Aly Ngouille di def. defu ko ci département bi daf ko def pour la commune de Linguère doomu Linguère mooy sargal waa Linguère woo waa daara ñu dem couverture ko. mais ay doomi doom ngay wax mais journalisme lu tax ko jóg. ah kay mais gis nga américain journaliste irakien bi euh, journaliste américain buy dem Irak guerre du journaliste bi kese kese de doomu États-Unis bi si boppam day couvrir li nga xamante ne ñaawteef yi américain def sax da koy nëbb loolu la ñu patriotisme loolu laa doon xaar ci doomu daara yi keroog Aliou invité leen ne leen nangam ñu ne déedéet yëg nañ ko ci Facebook woowuñu de mais danañ ñëw couvrir ko nee naa la à part UDTV ak yow mi nga xamante ni yaa fa yebal un certain Thiam Maodo Thiam mu ñëw personne n'est venu maa ngi gërëm suma rakk Moustapha Ndiaye wax dëgg yàlla un indépendant ak Omar Ka à part ñooñu kenn ñëwut. Moustapha ñu ngi koy gërëm ak Omar Ka. mais mais ñi si des tamit ñu ngi leen di gërëm mais. parce que man li man li may laaj. ndax yëgal nga leen. ñu ñàkk ñu wala leen yëg nañ yëgal na bu ñu ñëwut kay bul ci wax. wax xam nga li tax. constat la ma def. Idrissa ñun bu ñu def dara. nee naa la Aly Ngouille na na na maye or li ngeer nañ ne ko ah non nag suñ dooma xew la yëgaluñu ko de mais dañuy ñëw couvrir ko mais dama ne li ma wax ragaluma ko boo dee enveloppe yi ñu fay jëli. non da nga ko ragal kay parce que boo ko ragaloon da dangay da ngay. tudd ñëpp laa ñu ñu ñëw ñan. képp ku ñëwut yaa ngi ci biir. man sama cër passé na may tudd ay nit. mais dama képp ku di tas xatu xabaar te ñëwoo couvrir ko yaa ngi ci biir jarut may tudd. te xamoo lu leen dal lu leen téye xamoo ko. soxlawu ko ñi ngi woon li ngeen ñoom ñëpp. xam nga li tax le 7 juillet nee naa la ñun dañu def caravane médicale ci école 4 ba benn journaliste ñëw xam nga fa la nekkoon jour boobu moom ak suñu maire bi ñu nga woon ci benn place daara googu ne dañuy defendre Aliou Sall sur le pétrole. Momar Ndiaye mi daara. ma nga woon daara ce jour la ci benn place de la commune. avec les dix-neuf maires de la commune. te ñoom ñëpp yëg nañ ko. non ñoom ñëpp yëguñu ko mais le maire. maa ko bind maa ko woo. ñëwul wootewul. ne xam nga boobu mi ngi fan mi ngi ci benn place foofu moom ak ay naataangoomu maire ne dañuy defendre Aliou Sall presse bi yëpp boobu dem foofu. ils n'ont même pas dañuy venir couvrir. manifestation bi nga xam ne ku ci nekk ci ñoom tey sa yaay sa mag sa rak wala sa nangam ñëw na jëriñoo ca loola pour man loolu moo ëppoon solo dem di couvrir loola boobu benn la ma gis ko nangu ko bàyyi ko mu jàll bii paa ñu joxe ay léewoon ambulance bi man mën naa mën naa ko jëriñoo de mais maay mujj ci ñi mën a jëriñoo ambulance bi ñoom ñu bañ caa ñëw ku ci nekk tey sa njaboot yal na yéex mën nga ko jëriñoo ñoom mën nañ ko jariñoo kon tey journée de l'excellence boobu Aly Ngouille di jël ay ay ay teraanga di ko jox ay doomu waa Linguère dañ ko waroon a wax na ko ah tey nag suñ doomu ayee waaye liñ daan def rek muy continuité lépp lu xew rek ñu boobu dem Linguère dem li xumbalikoo dem Dafrika bu ñëwee daara moom après nangam ñi fàtte ko loolu laa ne dama ko fustigé ci journaliste yi man li may wax lu ma ko yàgg nañ ma jàppale waaye nag bu ma yàgg nañ ma jàppale boo leen tuddoon moom dana dana gën a am solo leen tudd parce que maa mag loolu waaye su ma ne journaliste yi wax ñi fa ñëw kon daam par exclusion képp ku ñëwul yaa ngi ci biir. waaw mais ñi ñëw ñu kon nga cité leen rek. ñi ñëw kay cité naa leen tudd naa Mamadou Moustapha Ndiaye tudd Amar Ka ba pare nag ne maa ngi sant yàlla ba TFM. kii est une télé de référence RFM ñëw i rajo ñëw i média ñëw. daamu loolu doy na. mais xëy na ñoom da leen a woo. dama leen woo. voilà mais lu tax defoo ko ñeneen. du ma leen woo xeeb la da nga leen sous-estimé. sous-estimé ma leen. da inspecteur su ma leen a woo ci li may def dañoo xam ne lii. service ba tey doo leen woote bu ñu bëggee ñëw ñëw. dañaa woo lu may defati. suñ ko yëgee nañu ñëw kenn tëjulu leen seen bunt ndax samay maga ci nekk non leen yëgal je veux dana nga def bii paa moom. loo xam ne jarul yëg. dama ne li ñu def nii ci sama page Facebook ak WhatsApp bi jarul parce que damay may ambulance nag daam duma ko dem ci rajo di ko publicité du ma ko def mais caravane médicale ci seen rajo yi dama leen fay daam couvrir naa fi ay manifestations yoo xam ne damay fay xaalis Ferlo FM fay Daara FM ñi ñëw ambulance du ñu ko mayee di ci publicité kon yàlla taxut ñoom ñoo ko gën a yëg kenn ñëwul ni ñu ko defee la ko le maire Maowa Ndiaye. je sa téléphone woo TFM i rajo ak yeneen ak yeneen quand boo ko defoon xëy na menn Doudou Thiane wala menn Samba Galaaj wala keneen ak keneen au moins dinañ wuy si. defuma ko wax dëgg fa yàlla parce que doonul lu ma leen yëgal lii may yóbbu Daara ñoo ma ko gën a soxla. seen alal la nit lu mu moom du xaar ko ko ci woo parce que bis nga action bi du doon politique bu doon politique danaa bind wala ma dem fay publicité c'est une action purement sociale ndimbal jaboot yàlla rek tax duma ci woo ñi nga tudd kenn ku ko yëg ñëw couvrir ko am na lu bari ñi ngi dem Linguère kenn yëgalu leen ko. alors le maire également. le maire également à son habitude wax na ko ñi ci benn émission la 4 août nee na Idrissa de politique lépp lu mu def li politique du ma ca dem dëgg la ba mu ko waxee la ko commencé monsieur le maire. defuma nee naa la dàll du ma ko sol te yëgulu ko ndax je le respecte sama papa la sama mag la ndax diggante El Hadj Ibrahima Ndiémé Ndiaye ak Ousmane Samb tax mu delloo ma ko bu baax nag waaye taxawaayam wax dëgg fa yàlla ah rafetlu ma ko ndax mooy sama meer même def na damay politique damay politique dëgg la. te yëgal nga ko yow vraiment. amul lu may def te yëgalu ma ko. Ah, bi Adama Ndiaye ñëwoon na fa est-ce que ñëwutoon si turu euh, li nga xam ne moom mooy maire bi. yëgu ma de ñëw na fa nag ñu sagal ko lool jox ko cër bu rëy waaye man dama jàpp ne. daam lu toll ni ambulance ñu koy joxe ci sa dëkk te les dix les neuf compétences transférées santé bokk ci monsieur le maire kenn waru ko ci woon a jiitu xëy bu ma aada de ñëw na fa teew fa teewaay bu am solo waaye man de wax dëgg yàlla woo ma aada monsieur le maire laa woo te soo gisee chaque jour mu ñuy envoyé tey sax la ñu door a envoyé monsieur le maire bind nañu ko correspondance parce que ñemewuñu électrifier ay armel woo ko téléphone dëgg la mu rafetlu ko mais accusé de sax defu ko il ne nous même pas répondu par courtoisie ñun suñ la bindee ne la monsieur le maire dañ lay ñaan autorisation ñi taal lampi ay la yébeen bindal tontu ñu ne rafetlu naa ko nga lettre de félicitation parce que armel yi muy wax nii bu leeree moo ko ci moo ko moom parce que lañ koy defal. xam naa juróom minute moo ñu des ah inspecteur euh, liñ war a wax lépp euh, gis naa tamit nga laaxaale ci docteur Mbaye. docteur Mbaye dinaa ko ci boole parce que moom le pire kenn war ko ci woon a jiite ndax alalam la. tey yëg na moom itam. man yëgul ma ko waaye sama mag docteur baaba joor Diop moo ko woo wax ko ko ñëwul. yónneewul ba protocole bi boole woon na ci ñi waroon wax ci turu hôpital Daara bi ñëwul wootewul boobu benn la caravane médicale bi ñu doon def la set dañ ko woo ñuy nekk ci yeneen action loolu nag moom it continuer la comme ni ko maire defee rek ndax dañuy politique man fii laa gisee un docteur boo xamante ni askan wee la fi indi tax la fay jóg nga ne je de la politique même en dormant kooku c'est gravissime te kilifa war na ci jóg wax dëgg yàlla am du sama xarit dëgg la mais jàmm rek laa ko yéene mais taxawaay bii ma gis ci hôpital Daara bi dara rafetu ci nañu éviter di jël yenn poste stratégique non mais xëy na li muy politique yi ça n'a rien ngi mel ni yow koo rek yaa ngi liggéey sa liggéey di def sa politique à côté moom xëy na mi ngi def politique am à côté di liggéey liggéeyam bokkul inspecteur des impôts politique mën naa am du yàq dara waaye gis nga docteur buy politique euh, man bu may politique entreprise bi ak ki ma faral ak contribuable sama néew ci waaye gis nga boo nekkee docteur di politique tey dëkk ñetti wago ki dëkk lumbal contre la mën naa bu ñëwee yow doo ko faj ni ko war a fajee wala dina am tuuti. politique booy politique ci maladie. moo fi am. c'est à gis nga loolu guñ ko quand même. non looloo fi am gis nga comportement bi am ci hôpitalu daara bii je le dis ñaaw na hôpital waruñu ko jox un politicien te docteur Mbaye c'est un wax dëgg fa yàlla moi je pense qu'il doit être à foofu rek laay waxee. je n'ai rien contre lui. nit ku baax la mu ngi def liggéeyam mais un médecin chef warul def politique. Malick euh, Sakho koo xam ne kii euh, xam nga ko dañuy baral nag li nga xam ne vraiment mooy euh, tonti nga baal ma rek ñi ngi jëm ci élection locale yi donte ne wax nañ ne gën ngaa yéex fii ak juin dinañ ko daal amal mais da renoncer sa candidature carrément dellu gannaaw. non mënuma na nekk tamit fukki millions bu ñu ko laajee. pare mën na nekk ndax nekk na wala nekkul. question fukki millions bu fekkee loolu lañ imposé ne moom lay am hmm. mouvement dem ànd bu amul fu mu lang ñu jàppale ko man de personnellement aw fukki million un million sax caution aw ko. non mais sa gars yi comme ni ngeen di cotiser. déedéet non fukki million kan moo ko mën a cotiser daam ñun amuñu xaalis dañu politiquer xaalis. kon bu dee fukki million du ngeen bokk ci élection yi. non du ma duñ bokk de xanaa ab parti am caution. ànd ak ñun ñu dem ànd ak moom waaye man de ma fukki million mais est-ce que du prétexte rek pour bëgg a wane ne rocceeku nga dellu nga gën a amutoo yaakaar ne da mën nga jël mairie bi déedéet man mairie bi daam amaguma ci yaakaar ak ñàkkuma ci yaakaar parce que awma benn paramètre bu tax ma war a ñàkk yaakaar daam man daar laa juddoo <laughs> màgget daara defuma fi lu ñaaw musuma compétir ci daara ñi gañe ma ci élection local kon man teel na ma teel a découragé te du man kese nee naa la mouvement politique Jolof en marche bi ñi fi nekk koo xëcc gëmmal ëndi ko mën na jiite daara te man damaa rëy wax di wax rek mais maa ko jiite mais dara leerul ne mouvement Jolof en marche ëllëg seen candidat ma lay doon mën nañoo jël keneen koo xam ne moom gën ah, ah, gën a apte pour jiite ko tamit mën a dem élection yi bu fekkee am nañ caution 10 millions yi beneen bi tamit ba élection yi amee élection yi am nañ dàq rek te li leer laa lay wax élection yi 2021 bi prétexte la may do am da nga nar a yaakaar yi nee nañ mën nañ ko amal avance couplé waat parce que ñii pareeguñu. d'accord mais euh, euh, Malick Sakho nee na ndax euh, nga àndoon nag ñu mel ni sa frère bu Bounama Sall El Hadji euh, Malick Ndiaye bu Pastef lu ci mel ni Pape Djibi Ndiaye bu APR pourquoi pas ngeen ànd comme intérêt Jolof te ñoom ñii ñëpp daara surtout daara daara fa la ñu fekk baax taxaw nga pour ànd ak ñoom. waaw man xam nga nag boo nee ngeen ànd ak moom te man kese nekkuma ci mouvement mouvement Jolof en marche ubbeeku na pour ñëpp. oui mais lan koy tontu exactement. moom li ma koy tontu mooy ñooñu mu tudd. awma ca kenn xaar ma yàlla li ñu boole mooy intérêt wu daara daal di ñoo ñu ngi wax ñooñu yëpp ku ci da nekk ci formation politique te ku wax parti politique wax discipline de parti mën na am liberté bi ma am man maag sama waa mouvement ñoom amuñu ko parce que bu naa ma sàll mi nga tudd Benno Bokk Yaakaar la nekk PS la nekk il faut mu déglu li PS wax ban attitude la ñuy tenir ci li ma yaakaar pour mën a ndax dana ànd ak x wala y keneen ki nga xam ne mooy El Hadj Malick Ndiaye mi ngi passif leader la foofu kon gëwuma ñoom dañu tëb tëb rek ànd ak Idrissa te ko wala ànd ak mouvement dem te teguñ ko fu leer kon wax dëgg fa yàlla nag ah ñun ubbeeku nañu ba képp koo xamante ni njariñu Jolof njariñu Daara moo la tax a jóg foo mënti nekk ñu ngi lay woo nga ñëw ñu ànd liggéey kon ñun amuñu problème maam bu naa ma seet sama xarit la ñoo jàngandoo man ak moom Kaolack ba université lépp rafet mi ngi liggéey liggéey bu rafet fa mu nekk maa ngi koy ñaanal El Hadj Malick tamit vraiment fierté la mi ngi liggéey liggéey bu rafet ci coalition ci Pastef kon ñooñu ñëpp ñun ñoo bokk li bëgg ñoo bokk fa ñu jëm très alors xam naa ne usman Diop Galaye moom itam euh, ay remerciements la def rek euh, ne dëgg-dëgg euh, nag mérito nga jiite mairie bu Daara Abdou Kobar également moom itam de la félicité usman Diop man moom toldu laa koy wooye xam naa ne léegi mënatul dara ci football léegi ak góolu sa diggante ak Aly Ngouille Ndiaye mu ne lan moo bloqué mbir yi parce que demoon nañ sax ba dégg ne bëgg na laa def daaf ministre de l'intérieur. waaw maa ngi gërëm ñoo ñu wax wax ju rafet ci suñu jëmm jii ne mën nañu jiite Daara et cetera yaakaar la rek. bu ñu am ci ñun ñii waaye dama ne kiy jiite ëllëg yàlla rek ko xam mais daam maa ngi wu jëgal waa daara solennellement ñun jiite dara sonaluñu jiite daal xam nga lan ma ñu sonal suñu kër gi ñu jiite daal suñu kër famille nekk fa njaboot doy nañu waaye jiite mairie daara terewuma nelaw. sa digganteeg yi sama digganteeg Aliou. ba ci daaf bu ñu doon wax. daaf. wala dage. waaw dage certainement daaf la def mais xam naa dage la waroon doon. normal naa dage la bëgg a wax rek mais loolu bu fekkente ne amoon na sax yàlla Ali jaarul ci rajo wax ko kon du ma jaar ci rajo di dugg ci li ma seq ak Aliou Ngouye suma mag la suma xarit la ku ma jox cër la te dama koy delloo. sagu jolof jolof bépp la. wax dëgg fa yàlla mais quand même vision politique am. non mënuma gëm wala ma ñàkk gëm vision politique parce que bokkuñu fu ñu bokk. mi ngi def liggéeyam ci côté fa mu far loolu du maa koy apprécier loolu waa jolof ak waa APR ga mu bokk ñooy apprécier liggéeyam. waaye ci li ko président Macky Sall dénk. ay la yéwén nam ko war a defee mi ngi koy defee comme ni ko ministre Samba Ndiébène di defee ñoom ñëpp ñi nekk ay digne fils di jolof nekk ay référence nekk ñoo xamante wax dëgg yàlla am dañ leen di sagoo ànduma ak ñoom ànduma ak Aly Ngouille ànduma ak waaye Samba Ndiébène suma doomu ndey la suma bu baay la Aly Ngouille suñu mag la ñun ñëpp donte ne Baba Diaw nee na sa digganteeg euh, Samba Ndiébène ba tey kenn xamu daal lu nekk ci biir li ci biir yëpp mooy euh, politique ànduma ak Samba Ndiobène te xaw ma ndax dana na àndam déet ndax duma ma wax suba. waaye li ñu boole moo jiitu politique Samba Ndiobène ba ñu ànd man ak moom daara fii ci CM bi. xamul ne dina nekk directeur wala ministre man xaw ma dina nekk inspecteur des impôts lépp rafet mu delloo ma ko bu baax jox ma cër jox sama waajur wu góor cër ba mu ñaanal ko kon jàmm rek lañu mën a séq. léegi gisatoo vraiment ne xëy na boola la dëkk dëkkatul dara parce que émission bu njëkk ba yaa ngi ko doon wax. waaw déedéet xam nga loolu moom circonstances yi mën na expliquer ma ne bula la dëkk te it bula la dëkk saa mu njëbeen wax dëgg yàlla am ëppale ma ko ci daara waaye boola la dëkk nag am na droit am na kër daara de saa ma njëbeen kenn gënu ko am droit laaj mairie daara bu ko waa daara gëmee ne saa ma njëbeen a gën ci daara ba fal ko. daam keroog laa lay wan ne li may wax dëgg la mouvement Jolof en marche li gën ci moom lay topp. ko jàppale pour mu falu moom mouvement bi. dinañ ko jàppale parce que ñun bu ñu amee suñu candidat dañuy jàkkaarloog moom bu dee candidat la wala keneen ku ñu am ci candidat dañuy jàkkaarloog yow bëreeg yow ba daan. très bien suñ la daanee. yaay sumee ko ànd ak ñun suñ la suñ daanoo te mu leer na ni yow Jolof ak Daara rek la tax a jóg. non su dee dañu lay tëkkastal kon ñu wax gëmuñ ko ndax nag daam Jolof en masse amul kenn koo xam ne nekk meeru daara tere na ko nelaw. alors euh, la nee na sa costume bi rafet na lool euh, bi nga xam ne moom léegi xam naa dana ñuy ñëwal moom itam. Europe yi moom itam di euh, ñaan émission bu mucc ayib alors Badou Badara Ndiaye moom itam rafetlu suñu taxawaay bon ñu ngi koy gërëm alors xëy na mooy laaj yu mujj mu jëm ci li nga xam ne ni tey moom mooy Malick Sakho yi nga xam ni ay bés bis wu euh, jot euh, mi ngi koy génne loolu ndax daara mi ngi koy jëfandikoo dëgg-dëgg wala yow yan réforme nga gën a xaar pour vraiment commune bu daara bokk ci commune yi gën a euh, dox loolu tamit il faut mu leer chaque jour da ngay gis nit toog li daara di génn li di génne su ma mag maawo li ma mujj dégg ci moom li ñu gën a jàpp ne mi ngi génne xaalis mooy daral gi te nee na 30 millions lay génne par kon foofu mooy niche bi nga xam ne moom la ñu war a gënoon a xoolaat xool lu ëpp la muy génne ci daral gi beneen bi aussi waa daara nangoo fay impôt daam est-ce que yëngu ne daara euh, ñi fi war a fay impôt kenn fay ko foncier bati tudd na ko ci émission maanaam kër yi taxaw yépp daara euh, bâtiment yaa ngi taxaw commerce baa ngi dox mais amul bëriwut ñoo xamante nii tey jaral daara jaral leen cinquante mille francs par par par at heure bu waa Louga ñëwee sax ñëpp dañuy tëj ñetti fan ne duñu liggéey kooku nag bu fekkee yow li nga war a def ci sa dëkk def nga ko pare en retour nga pare di ŋàññ dëkk bi di ŋàññ monsieur le maire monsieur xaalis xaalis bi ay impôt et taxe la yi nga xamante ni man maak sama morom ak keneen ñun ñoo koy génne jox ko monsieur le maire ne ko doxalal su ñu demee ba daara depuis des années budget bi mënul passé 500 millions mi ngi ci 464 millions ci lu mujj. loolu dara budget bi avancé wul nag ay recettes la ak i dépense tant que recettes yi yokkul budget bi du yokk. mais xam naa ne defoo benn proposition yi itam bu jëm ca kanam de. ah kay nee naa la li ma la wax niche yi nga xamante ni suñ ko exploité. muy daral bi par exemple sol saw daal dem mairie ba wala nga bind leen mail euh, ñun ñi xam defoo ko quand même. ay la yéwén defuma ko. defuma ko ah, peut-être parce que adversaire nga jàppee sa bopp rek. toog fi nga toog di di man maa dépassé loolu. koo xamante ni da ngay indil le maire nañuy setale dëkk di taali làmp di faji nit. di indi ambulance. loolu sa bopp nga ko defal d'abord. commune bi après. sama commune laa ko defal daam nee naa la li ñu def nii suñ ci pare woon ñi ma bokkal kër sax saaga ma ndey ne ma doo nit ak dara. wallahi billahi taala du tere ñu kon ne ko kon ñun defuñu dara ngir suñu bopp daam ñun yàlla teral nañu ba pare car macha allah ak ñi composé tout le mouvement dem. gis nga ñun defuñu ñu dara lépp loo def ñu ne politique la dëgg la kon dañu fii nii la ñu politique lii mooy politique bu ko parce que dañoo bëgg jëte de. dam est-ce que ne nekk maire salaire ru 300000 ngay am daara ñun li ñu gagné ak ñeneen ñi ni ci mouvement bi ëpp nu fuuf loolu kon ñun xaaru ñun pour nekk maire pour jëriñu ñun dañoo bëgg a jëriñ daara soxlawuñu daray daara nag ñun dama ne amuñu poste direction amuñu poste de ministre te ñu ngi fexe def ci dëkk bi kon ñun dañoo bëgg a jëriñ jëriñoowuñu comme ñeneen ñi. très bien alors député bu ne duñ fay impôt comme ni ko Ousmane Sonko waxee woon da nga koy dëggal. ko dëggal nag. loolu wóoruma ndax nekkuma sur ci ci biir mais li ma mën a wax daal amul benn texte. ci code général des impôts bi nga xam ne ñun moom la ñu liggéeyee bu mën a exonérer un député euh, am impôt ndax député day percevoir lañu naan salaire wala émolument wala indemnité wala leneen ndeke moom ne ci privé yi ñi ne ci privé sax dañu fay am laa képp ku ne ci public bi. boo demee ci article 164 moom mooy traité champ d' application pour impôt sur li nga xamante ni moom mooy fayeeku salaire yi boo demee ci article 165 foofu danañ wax ne ki nga xam ne dafa am solde indemnité. prime de tout nature maanaam prime bu mënti nekk ak duñ ko mënti tuddee ba ci avantage en nature oto yi ñu leen di jox sax dafa war a bokk ci base bi nga xam ne dañ koy carburant bi téléphone bi gardien chauffeur yëpp dafa nekk li ñu avantage en nature dañ ko war a évaluer dugal ko ci base bi ñu fay ndax ñu ngi fay wóoruma waaye daal dama ne amul benn texte bu exister ci code général des impôts buy buy buy buy exonérer un député euh, du paiement de l'impôt dañu war a fay impôt ndax ñi ngi fay loolu wóoruma Ousmane Sonko neen duñ fay nañ indi la preuve contre que ñi ngi fay. très bien alors xam naa ne euh, bi ñuy mujj dajale moom am nga waxoon nga ne Promoville PSE fii ak deux mille trente cinq euh, vraiment cëraluñ dara daara. loolu moo xam naa njumtale woon xanaa. du njuumte lan lañ defal daara depuis boobu. alors bu dee avant les élections lan lañ defal daara après les. élections lan lañ defal non parce que dem na man date bi la wax. ñu wax leer na dañu ne. soo visité xool lañ fa war a def fii ba deux mille trente cinq daana amul luñ programmé dama ne bi loolu amee diagnostic bi mooy les autorités xam nañ def nañ erreur ñu indiwaat des propositions wax ji seen wax jee nga yaakaar déedéet du loolu du daara rek de dañu dem ba xam ne pes e mun a egg fépp. ñu indi des programmes parallèles comme le PUDC pour wax ci monde rural bi. ay Promoville ak i PUDC ak euh, comme Puma. Mm-hmm. pour jéem a. Euh, pakaseen ak yooyu pakaseen pour pour pour jéem a au moins corriger imperfection PSE mais PSE bi nga xam ne mooy. programme koy wax moom vraiment amutoon. ba tey jii nii amul. daara lan lañ fa def li ma wax nii waxuma du am de. Hmm. PSE fii ba 2035 amul lu mu prévoir pour Daara Jolof. PUDC nee naa la mi ngi def ci Jolof mais dans les villages yi nga xam ni prévoir nañ ko. prévoir prévoir bien sûr. Ah, parce que xëy na euh, dina am prévoir lañ mën a parce que seen tamit euh, fanweeri millions yi nga xam ne xëy na génne nañu ko ak di waajal yeneen plan euh, directeur bu assainissement tamit nga xam ne fi ak at mi jeex xëy na dinañ ko dinañ ko dinañ ko mën a matale alors projet de ville propre bi nga xam ne bii moom itam gis nga communes yi ko gagné Sénégal bëriwul fukki commune la Daara ci la bokk loolu moom xanaa mérite la ak lu toll ci. ci euh, ñaar fukk ak ñeent ci ay euh, kilomètres de réseau ñeel wàllu courant bi ñaari euh, kilomètres ci fonds propre boo xam ne mairie bi moo ko génneel boppam alors ñetti téeméeri lampadaire loolu moom yàggul daam damaa jàpp ne yow li ngay wax nii bu la waa daara dégg sax danañu fekk suñu émission bi tas ko ndax. Eh, ñoom seen chiffre la. merci beaucoup da ngaa dem fekk un agent de la mairie mu defal la. Eh, bul da ngaa dem fekk un agent de dama ne xanaa dama dama ne dama xanaa da dem wala beneen agent mairie ñëw ne la waxal Idrissa Ly mais li may wax nii. man di waxal Idrissa Ly laaj ko ko wala nga wax ko non dama ne pour nga wax ne. Idrissa gisoo ko non attends dix kilomètres de route fan la am. ah non ñu ngi koy waajal daara ville propre ci biir waaw daara est l'une des villes les plus sales daara boo jógee <laughs> Louga nga jógee Touba nga jógee entrée corniche ba daara la fa nekk ci salte ba ñun ñii Jolof en marche def ci set setal invité monsieur le maire yónne wu ñu daba yónne wu ñu rato yónnewul paam ñun ñi dem di setal nga ne daara est la ville la plus propre daara fait partie des villes des villes les plus sales bu dee côté assainissement bi ngay wax non je suis désolé dame daara bu xasee taw place publique beeg bi pata pata ba am ba ci kaw tali bi non assainissement ci daara gii daam lii ñuy bind nii amul lu ci am. un kilomètre huit moo fi am. te monsieur le maire wax na fa mu jógee Sinoa yee ko fi def. c'est du mérite dëgg la. mais gis nga lii mu liste bi ñu def nii. amul lu ci am. très bien maa ngi ñaan yàlla nag lii ñuy wax nii. yàlla nañ ma juum lool ndax nag. ay la yéwén nit ki doo ko compte ba lu baax loo xam ne sab gox la ñëw nga di ko ko xañ. 300 mhm. lampadaires yooyu ñuy def ca buntu mairie ba. maa ngi ñaan daboon nañu baleel suñu buntu mairie bu salte boobu xarxanam la. baleel ñu suñu ko tali bi pentiral ñu suñu mairie bi ngir yàlla boog ba mu xaw a rafet tuuti 300 lampadaires yooyu nañ gaaw jëlee ko fa samp ko ci dëkk bi leeral dëkk bi ndax insécurité bi bari na barki démb dégg naa poste Senelec ba dañ ko braqué nit ñaa ngi dugg ci këri jaamure di leen braqué loolu lan moo ko waral parce que daara lëndëm na daara rëy na daara soxla na police daara soxla na gendarmerie daara soxla na ñuy def patrouille patrouille loolu amul. très bien vraiment dëkk bi loxo yi mu teggi ni daal wax dëgg fa yàlla. tegeegul ci ay ay ay ay loxo yoo xamante ni waa daara gërëm na leen ñun nag waxuñu parce que bu ñu ñëwee ñoo gën wala déedéet loo fi wax ëllëg ñu ne yaa fi waxoon mais li ñu gis na daal yéene nañ lu ëpp waa daara yéen seen ak ñëw moom leeraloon sa tey suñu ñëw du doonul lu ñu leeral bëgg-bëgg la dépendre ci ñun ci ñaar la dépendre muy yàlla suñu borom ak askanu daara. très bien ñu bëri ko parce que waxtu yi vraiment jeex na tàkk inspecteur. Ah, déjà kon jeex na jeex na tàkk tàkk maa ngi gërëm ñëpp. di jéggulu ñi ma tudd ci émission bi te peut-être wóoruma leen woon tudd. ku mel ni docteur Mbaye ak sama mag monsieur le maire Maowa Ndiaye ñoom ñëpp tudduma leen parce que dama am ak ñoom problème ak waa journaliste yi yéen ñëpp maa leen di baalu àq. bu dee wax naa lu ëpp maa ngi sukk ci kanam ñëpp di jéggalu wax moo doy waar rek léeg-léeg nga wax juum mais su fekkee juum naa daal maa ngi jéggalu bu baax maa jeexal te gërëmuma nag waa mouvement Jolof en marché yi nga xamante ni ah dañu maa jël teg ma seen kanam te du njàng du lenn lu ma leen ëppalee ñu jël ma ne ma jiite ñu ba pare lu ñu ma ci dara. muy góor ñi surtout jigéen ñi nag surtout jigéen ñi maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm jeunes yi di gërëm diaspora bi daam yënga ne on a un groupe WhatsApp boo xam ne ça fait presque plus de quatre cent membres ci ci daara ak jolof ak li ko wër di gërëm ñi ne ci village yëpp di gërëm waa daara yëpp taxawaay bi gis nañ ñaani di gërëm sëriñ si di gërëm mag ñi di gërëm ndaw ñi wax dëgg fa yàlla mënuñu jeexal te gërëmuñu ñooñu ndax def ngeen ñi sunu xol seen xol ñun tamit wax dëgg fa yàlla yéene rek la ñu am yàlla rek moo matale fépp ba village yeeg yeneen dëkk yi nga xamante ni gisaguñu seen bopp ci suñuy action nañu ñaanal yàlla suñu wërsëg avancé rek dollee ko ba ñu ma leen jàppale fi may jeexalee mooy wax naa ko keroog Idrissa Samb amuti milliard Idrissa Samb amuti million Idrissa Samb salaire la yor comme ñëpp jëlut alalu jàmbur deful lu bon li muy def yëpp ci sama poche laa ko génnee ak ndimbalu nit ñu baax ñi nga xamante ni ci Facebook bi lañ may xool wala am ñu baax ñu ma boole ak ñoom ñi di jàppale te lépp lu ma jox nag jolof laa ko jëmale. loolu daal laa bëggoon wax. très bien ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax inspecteur euh, Idrissa Sam inspecteur des impôts et des domaines euh, nekk euh, tamit njiital mouvement Jolof am marche di dem ñu gërëm ko sant ko bu baax gërëm mboolem ñi nga xam te ñu ngi doon déglu rawatina bu action bu mujj bi nga xam ne bi def nga ko ñu la ci ndokkee di ci gërëm nga xam ne defal nga ko ñun ak ñëpp soxna Adama mi nga xam ne moom itam ay cëram dafa sotante nga taxawu ko ñaanal waa wu jigéen wi nga xam ne moo ko njëkk a dawlu yàlla xaare ko aljanna jar na gërëm tiit mboolem ñi nga xam ne ñi ngi def lu baax ci Sénégal gi yëpp rawatina ci Jolof gi yëpp euh, ndokkeel tiit ministre de l'élevage moom itam ci journée nationale bi nga xam ne bii ñu ngi ko doon def euh, li nga xam ne mooy alxamis bi ñu euh, génn gërëm tamit le ministre Aly Ngouille moom itam li nga xam ne mi tey mi ngi def coupe du maire ci Linguère kon ñi ngi leen di gërëm mbokk di leen sant bu baax mu nekkoon seen émission Pencum Jolof Dame Ndiaye mu nekkoon ci kaddu gi gërëm Ferlo FM Jolof Actu ak Africa 7 jàmm ak jàmm ak Africa 7 jàmm fii ak Africa 7 jàmm ak jàmm fii ak Africa 7 jàmm ak jàmm fii ak Africa 7 jàmm ak jàmm